benn priorité économique mun nañ leen baal ñu def benn erreur politique mun nañ leen baal ñu jël leneen def ko ne mooy priorité mais munuñ leen baal mbirum justice munuñ leen baal mbirum politico judiciaire munul nekk c'est impossible c'est impossible on doit rendre service à ce régime tous les Sénégalais parce que ñun ñëpp dañoo cotiser d'une manière ou d'une autre pour que ces gens-là accèdent au pouvoir ñii dañoo ñàkk seen bakkan ñii dañ ci jëlee laago ñii dañ cee tëdd kaso ay at kon loolu noonu mënul nax saay pour ñu delluwaat ci situation boobu noonu di ko dundaat dañu ne délit d'opinion liberté d'expression du wax lu la neex ak num la neexee ak fum la neexee du wax yëkkati ay kàddu ñaawal ko ci ay doomu aadama ce qui se passe aujourd'hui ci réseaux sociaux yi yàq der waxante lu bon ndàngam ndàngam loolu bokku ci liberté d'expression te loolu bu amee yoon war na ci àddu loolu nangu nañ ko d'accord nañ ko mais dañu ne régime bi donte dinañ wax ne c'est les mêmes juges qui sont là c'est la même loi qui est la c'est la même police qui est là mais ba tey système judiciaire bi fi nekkoon moo fi nekk chancellerie bi moo fi nekk ba tey procureur répond aux ordres du ministre de la ministre de la justice ministre de la justice du gouvernement procureur jox ordre de police mais loolu mu mënuñ ko setaan c'est impossible mënul nekk mënul nekk on a même vu le ministre de l'intérieur génn di toog di défendre li ñuy woowee la loi Ousmane Ngom qui interdit systématiquement au Sénégalais de marché lu ko dalee post Médina jëm Cap Manuel rawatina mu dolli ci ne moom bu ñoon sax kenn dootul manifester place de l'Obélisque place de la nation mais loolu fan la ko teg fan la ko teg y même pas neuf mois on faisait une marche pour la libération de Aliou Sané et de Ousmane Sonko ñu demandait à le à la place de la nation Macky Sall nañu pour les travaux du BRT mun leen am bërëb bi ñun ñëpp ñun ñëpp ñu génn ne lii du yoon ñu kaas ko mais depuis quand ministre de l'intérieur moo ñu tànnal fan la ñuy marché ak fan la ñu war a taxaw ak nan lañ koy casser pourquoi ñuy interdire à l'opposition de marché pourquoi ñuy nëbb le dossier bi nga xamante ne conseil constitutionnel génne na ko pour ces élections là ba heure bu mu leen neex ñu publier ko c'est fausser c'est fausser le jeu et ils en ont subi les conséquences ñoom donc on peut pas permettre à ce régime de rentrer dans ces dérives là non non non non non non non non non non nous ne l'accepterons pas on ne l'a pas accepté sous Wade on ne l'a pas accepté sous Macky Sall c'est pas aujourd'hui qu'on va sénégalais yëpp seen mbébét seen yéene seen bëgg-bëgg mooy régime bi réussir suñu réussir man mooy sama noflaay damay tëdd nelaw juróom-ñeenti weer a ngi nii ma nekk ci sama jàmm bu passé que li ñuy def daf ñu neex bu passé que dañ am jot rek di génn di wax bugguñ ko tal nañ leneen mais l'heure est grave l'heure est grave te et li gën a graaw dama ne même si c'est la même justice qui est là même si c'est le même système qui est là waruñu woon a nangu ñuy o ay nit sur la base dafa am lu ñuy wax parce que nag donte liberté d'expression du wax lu la neex ak nu la neexee ak fu mu la neexe te ko ci deru ku nekk mais boo jàppee nit ci ay kàddu yi nga ko jàppee mais bul ko jaaba njalaloo retour de parquet woo ko enquête ko su indee preuve nga bàyyi ko su indul preuve nga mu janoog procureur procureur yóbbu ko flagrant délit parce que li mu def dafa leer c'est un flagrant délit kooku kenn war ci yóbbu kenn instruction beneen bi mooy un homme politique engagé dans les prochaines élections législatives à quelques semaines de la campagne ñu koy woo ci ay délit d'opinion ay diffusion de fausses nouvelle mais diffusion de fausses nouvelles délit d'opinion wala wax sa xalaat depuis quand contredire les chiffres d'un premier ministre est un délit au Sénégal depuis quand qu'on le dise depuis quand contredire les chiffres d'un premier ministre même le premier ministre lui-même fii mu toog di def sa son sa sa sa conférence il a dit j'ai toujours contredit les chiffres de Macky Sall après aujourd'hui ñu jàpp nit parce que dafa contredire ay chiffres mais c'est un opinion jàmbur la il faut que notre démocratie souffle il faut qu'il y ait une opposition il faut qu'il y ait une presse libre il faut qu'il y ait une société civile il faut que les gens wax seen xalaat mais nañ ko wax ci ni mu war a nekkee nañ ko wax ci anam bi mu war a nekkee que les gens les gens ça c'est un appel que je lance solennellement à tous les Sénégalais respectons-nous nañu bàyyante yàq der nañu bàyyante waxante bu ñaaw nañu bàyyante uññante yenn suture yi tey waxante dëgg nañuy waxante dëgg te bàyyi caaxaan bi que la presse prenne ses responsabilités oh, yéen ñëpp xam ngeen fii ban presse ak ban presse moo fi nekkul di def liggéey bu baax il faut faire les assises de la presse pour que presse bi waxtaan seen biir xam nan moo nekk le problème qui gangrène dans leur opposition bi def la même chose société civile bi def la même chose gouvernement bi defaraat taxawaayam parce que loolu la ñu sant dañ leen a sas yónni leen te yàkkamti leen les chantiers son énormes les chantiers sont énormes les chantiers sont énormes et sincèrement en tan que sénégalais je de tout cœur pour que ñoom ñu réussir c'est mon souhait parce que mooy sama jàmm yaram mooy sama noflaay mooy noflaay kulli sénégalais yàlla nañu réussir seen seen seen mission parce que bu ñu ko réussirul dañuy nekkaat ci mbedd mi di xeex parce que loolu suñu ADN la suñu deret la nekk dañuy xeex ba keroog ñuy jëm ndox ba ndox di jeex parce que loolu la ñu gëm yaa a même pas neuf mois on était ensemble ci sur le terrain di xeex pas pour que ñoom ñu accéder au pouvoir mais parce que problème yi Macky Sall tegoon Sénégalais yi moom lañ doon xeex ñoom bi ñu accéder au pouvoir ñun delluwaat nañ ci suñu li ñu xamante ne moom la ñu xam muy suñu combat citoyen mooy defar ay école mooy changer ay espace libre mooy waxtaan ak maire yi waxtaan ak député yi dem ci gox goxaat yi ñun loolu lañ bëgg di def tegal suñ projet teg nañ suñ projet Caribou ci yooyu lañ bëgg di nekk ñu nekk ci ay yii nii waxanteeg yii nii nii vraiment c'est dommage mais c'est une décision ça a été une décision impopulaire que d'arrêter des gens comme ça à tout bout de champ sur des lois yoo xamante ne nii c'est liberticide d'accord uñu ko monsieur le gouvernement d'accord uñu seen décision yi ngeen jël et vous verrez vous-même que c'est la bi ngeen jël bi ngeen ñëw ci nguur ba léegi vous l'avez constaté moo tax bu ngeen bàyyi leen ñu dem c'était une erreur te bu leen ko répété les sénégalais sont la réduction des comptes oui képp ku sàcc alalu Sénégal dañ ko war a jàpp ñu luubal ñëpp jàpp leen leen amul benn sénégalais bu ci am lu mu ciy wax jàpp leen leen xam nañ leen rapport yaa ngi fi sàcc yi ñun ñu xam xam nañ leen kenn du ci wax au contraire on va applaudir mais bu mu nekk chasse aux sorcières bu mu nekk diw neexuma encore une fois c'est pas pour Cheikh Yérim Seck c'est pas pour Kader c'est pour Bougane nekkuñ ci ay personnes démb dëkkale woon nañ ñu barki démb dëkkaloo woon nañ ñu Macky Sall démb ñu dëkkal ñu Pastef tey bu ñu kenn dëkkal keneen parce que du ñun du ay problème mu nit c'est sur les principes on reste sur les principes et on restera sur les principes quoi qu'il advienne quoi qu'il advienne te ñoom ñoo la ko gën a xam ce régime en face ñoo la gën a xam ne ñun on restera sur les principes fëkk yóbbuwuñu et que on sera là on restera les vigiles de cette démocratie on veillera sur notre kenn du ko salfaañe kenn personne personne laa wax du salfañe suñu démocratie on sera là et que loolu il faut mu clair donc gars yi waxtaan bi loolu la woon am nañ naqar lool mais alhamdulilah tout est bien qui finit bien on espère que dinañu jël le leçons de cette décision impopulaire bi ñu jëloon que d'arrêter les gens à tout bout de champ pour des lois liberticides yoo xam ne ñun ak ñoom dañ ko bokk di ko combattre barki démb kon loolu nañ ci bàyyi xel ñu jublu ci urgence su sénégalais yi ci urgence su yi nag ñëpp. ciy dawal compréhension sénégalais boo gis fépp ngi métti ku nekk sonn nga mais ku nekk xam nga ne juróom-benn weer quand même munoo cee critiquer yenn critiques yi nguur ñëpp xam nañ ko il faut il faut être raisonnable ku koy xaar ci ñun doo ko gis parce que on est raisonnable on est raisonnable mais on est patient notre patience nag lenn moo ko mën a yàq mooy des des questions de liberté ça on l'acceptera pas parce que les questions de liberté aussi bien que les lois soient là et restent et demeurent Bassirou Diomaye sa son premier discours il a parlé de lanceur d'alerte que dama ciy def une sax une loi nit ñi am yaakaar ne c'est un autre pas vers les libertés def assise de la justice ñu jox ko rapport nit ñi amaat beneen yaakaar kon su nekkee ne ay loi la yu ñu war a voter nañ ca gaaw su nekkee ne ay changement la yoo xam ne dëkk rek moo koy def nañ ca gaaw waaye justice bi dañ ko war a coppi justice aux commande du pouvoir dafa war a jeex ci réew mi dafa war a jeex ci réew mi ah voilà loolu moom mooy dëgg bi maintenant ngeen liggéey quoi liggéey leen dañ leen sant ngeen liggéey waxuñu ne ngeen jàpp ay nit à tout bout de champ liggéey leen l'heure est grave les sénégalais sont fatigués loolu mooy dëgg bi voilà et et que beneen bi moo buggoon wax mooy nañu nañu bàyyante xel ñun Sénégal ñoo ko bokk suñu réew nañu bàyyi di defante yu ñaaw di waxante yu ñaaw ça ne nous avance à rien TikTok c'est un moyen qui permet aux Chinois de développer ay intelligence mais ñun on l'utilise pour yàq ay doomu aadama c'est pas normal et je dis à tous ces gens là qui prennent la parole dans l'espace xool leen li ngeen di wax seet leen li ngeen di wax seetantal leen ko nit mënoo toog taal sa caméra di wax lu la neex ci deru jàmbur c'est pas comme ça c'est pas comme ça il faut que ñu xoolaat suñu taxawaay moo xam chroniqueur nga moo xam rappeur nga nañu bàyyi di wax loo xam ne du dëgg te teguñ ko fenn parce que nag ku fi tooñ loi dalay teg dalay dalay daan c'est ça la la loi donc loolu laa ci bëggoon a wax de manière ramassée di wax ne ñi ngi xaar seen ay ay questions ñu ngi koy teewlu jërë ngeen jëf. xafoon merci. jërëjëf Thiat euh, jarul tënk leer na leer na nañ ci waxtaan bi li fi jëpp mooy y a un besoin fondamental de réformer notre justice loolu moo fi génn ci tënk ci waxtaan bi te bu ngeen xoolee ci ndorteel bi loolu la ñu waxoon ci justice la ñu yam te ci justice la ñu yam encore une fois. il y a un besoin réel et primordial de réformer not justice parce que même système bi moo fi nekk ba léegi mooy continuer duñu gouverner donc dañuy ubbi laaj yi su dee am na ñi nga xam ne bëgg nañ jëmal euh, samp ay laaj voilà euh, ñu ñëw